moom moo tax ñu daal di waaxantu daal di ñëw ginnaaw bi ñu jëlee li nga xam ne ni moom mooy euh, déclaration waa Pastef ginnaaw raay nord moom nag li ñu wax mooy mënul wax actuellement mais nag bi ma duggee jot naa ko téléphone euh, jot naa ko téléphone am na ku ma fa fekk mu wool ma ko téléphone jox ma ko moom honorable député Mame Diarra euh, Fam donc euh, euh, biñ ñu ko joxee nag nuyonte na ak moom expliqué ko li ma tax a jóg nee na naam gis na sama appel gis na samay sama message mais euh, dafa am li nga xam ne moom mooy ndigal ne bu mu wax nee na Karim Meïssa Wade moom moo ko wax bu mu àddu jëme ci mbir mi parce que nee na bu àddoo rek jëme ci mbir mi mën naa yàq ñoom li ñu sumb ak ñu bëgg def moom loolee la ma expliqué ndax ku ne xam na ni ni ki euh, tey jii ci suba euh, wala sax démb ak tey ñii di waa PDS euh, di maître Abdoulaye Wade Karim Meïssa Wade ak seeni i ñooñ dañoo rangé wu ci ginnaawu ki nga xam ne ni moom moo di coalition jomay président donc démb bi mbir mi di am bi muy taxaw ne waa Pastef ñoom ñoo taal këram ak yeneen yu ni mel ak bi muy wax ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Pastef ginnaaw raay Euh, fekk na boobu xëy na papaam di maître Abdoulaye Wade ak frère am di euh, Karim Meïssa Wade ñu ngi nas li nga xam ne moom mooy jàppale dem fekk ji coalition Diomaye président euh, ginnaaw gi nag nee na moom ci la ñu ko wax ne ko na bàyyi lépp mu sedd na bàyyi lépp mu sedd boo leen déggee nag na bàyyi lépp mu sedd mooy moom lim ñu wax mooy moom du bàyyi mu sedd ndax dina leen topp ci yoon waaye nag dootul wax lépp loo xam ne ni rek mën naa yàq jëm di élection yu dimanche yi parce que nee na comme moom euh, Abdoulaye Wade mooy mantooram moom rek la am mooy baayam euh, rawatina ci politique bi Karim di frère am li ñu bëgg rek la leen di defal nee na moo tax euh, dafay daal di ànd ak ñoom dugg ci biir coalition Diomaye président d'après nag li nga xam ne moom mooy li mu doon jiiñ démb ñii di waa ñii nga xam ne ñoom ñooy Diomaye président waa Pastef bu ginnaaw raay noor jotu cee indi ay leeral laaj naa ko ci kër geek yooyu mais indi wu ci ay leeral jotu ci indi ay leeral waaw euh, ñun jël nañu kër kër gi filmer nañu ko comme noone mais daal gisuma ci vitre bu toj man sama aqulaay taalaa laay waxee mais gisuma fa vitre bu toj ba gis loo xam ne dafa tàkk waaw gisuma ko fa donc moom nag li mu wax moom mooy euh, xale yi dañu ko yàpp ak yeneen yu ni mel euh, loolu moo tax mu demee ni mu demee waaye nag nee na décision wu Abdoulaye Wade ak bu Karim Meïssa Wade frère am dina tax mu bàyyi lépp dal di focus ci li nga xam ne moom mooy euh, élection yi nee na Sonko doomam la te doomam lay mës a nekk mi ngi mer nag ba tey jii li ñu koy wax si yaay loolee da ko da koy mer ba tey parce que si yaay boobee bokk na ci li mu ari nee na ci ay xale ñoo ko koy wax loolu ma nag waa Pastef dana ay xale ñoo ko koy wax ci internet be geneen donc waaye nee na ma laaj kon ndax moom day wëyal campagne pour campagne al Diomaye président mu ne ma ne ko da koy def biir ginnaaw raay mu ne panélistes yi mu comme ci panel yi mu nekk ak groupe yi mu nekk biir Pikine ak fépp foo xam ne ni mën na koo mën na faa communiquer di communiquer pour fësal li nga xam ne moom moo di jàppaleem ci coalition jamaay président comme ni ko mantooram defee ni ko partiem defee moom loolu la wax kon ñi nga xam ne ñoom ñoo doon joxe information comme quoi moom idi honorable député Mame Diarra Fam dafa fekki Amadou Ba ak Benno Bokk Yaakaar moom weddi na ko ba mu set nee na PDS la am mantooram mooy euh, président Abdoulaye frère am Karim Wade ñoom lay topp lu ñu dox wax loolu lay wax donc moom nag nee na boobu décision lay suivre moom lay suivre te loolu moom moo ko moom moo ko ñor donc euh, moom sunu yaay euh, maam Jaara Faam loolu la wax loolu la wax aussi di di di di lu di ñaxtu rek di ñu koy wax ex yaay waaw ci téléphone bi la ma ko wax parce que ñan sonn pour mu wax nee na du wax ak benn journaliste mais xëy na ñun aussi li nekk doomu Pikine mu nekk doomu Pikine moo tax sax mu jot jox ñoo jot jox jot ñoo jox yooyu le information waaw mu jox jot ñoo jox yooyu le information donc euh, xamal nañ ko ne tamit demoon nañu ci ñii di waa Pastef ginnaaw raay noor ba ñu wax li nga xam ne ni moom moo am ci ci ci ci affaire bi mais moom nangu wacce nangu wuccee yëyaat yàb bi waxuñu ci benn information bu leer ci taal na ñoom taalul cocktail molotov yeeg yooyu waxaatu ci leen li mu wax daal mooy politique la wax ak wane ne dafa am lu ko naqari euh, ci euh, ñenn euh, ci parce que ni ñu koy taxé waaye tam ci internet bi que ex-yaay la ak yeneen ak yeneen mais limu fasal daal moom mooy décision bi maître Abdoulaye Wade jël ak waa PDS loolee suivre loolee rek lay dem suivre donc euh, jàpp ne rek information bi ñu doon joxe ci moom du dëgg amul du dëgg amul moom li muy mooy décision bi président Abdoulaye Wade jël moom lay suivre nee na PDS ci euh, moom lay doon tey moom lay doon ëllëg te ci lay de te décision bu ñu jëlee du ci yéeyaat yàbb bi waaw xëy na tamit fii lay mbir mi di jaare rek tàbbi gi ndax xam naa ni euh, ku bëgg a tëdd ak ku ñu tëjal ko dara du leen dara war bu ñu waxtaanee rek ñoom ci seen biir dina juboo xëy na dina dem daal di waxtaan ak ñi nga xam ne nii ñoom ñooy ay euh, frère ginnaaw raay noor ngir daal di jéem a jubóog ñoom parce que bu fekkonte ne démb décision bi wàcc na amaana tey li mu def ak ko def lu li mu def euh, li ñu def démb li mu leen wax du leen ko wax wala li mu yaakaaroon ci ñoom du leen ko wax mais nag ginnaaw bi décision bi génnee Euh, nee na daal fi mu ne nii politiquement rangé wu na ci ginnaawu Ousmane Sonko comme ni mu ko defee woon rek ak ay ñoñam ngir di mën a campagne <laughs> donte ne campagne bi tey jii ñoom dañoo yéex a euh, dugg si ci affaire bi mais nee na dina fësal dina fësal bu soobee yàlla. naa ko nag nekkoon ndax danga koy fësal ci neneen mu ne jarul muy bind jarul muy mu ci mu ciy def dara nee na moo tax bëggul journaliste yi ñëw di ko laaj. mais man jot na ma wax lii ci téléphone moo tax ma ne naa leen ko yeggee yéen mbokk noot yi mais daal ñun dem nañ ba ci kër gi gi ñu doon wane démb seede bi loolu la parce que ku ne li nga gis rek ngay ngay ngay seede bi loolu la dara tàkku fa euh, amul sax miir bu fa xoosu fumigène yi nga xam ne ni ñoom ñii di xale yi fi yi comme ni ñu ko waxee ñu ngi ko yoroon di jubile ak di euh, di caravane ñëw ba xëy na foofu ci wetu këram xëy na ku kuñ kuñu jàppee woon adversaire politique la ak yeneen ñu ñëw ba foofu di jubilé xëy na loolu moo tax euh, yenn wax yi jiboon waaye wax yi jógoon a ah, daa mel ni teg na ko ci suuf daal ndax waxaat ndax yaakaar naa ne dul jàmm jàmm ko gën te it gox ak goxaat bi euh, jàmm rek moom moo fi mën a am ci diggante ay frère ak i sœur euh, bi coalition Yewwi Askan Wi boole dañ doon añee këram di fa ndékkee di fa yeewoo di fa moom donc xam naa ni jàmm rek moom moo war a dox seen diggante ñoom incha allahu rabbi te moom xam naa dina dina ci am loo xam ne dina ko ci jox parce que bu ñu bëggee tam am dam comme ni ko waa Pastef foxee ne ñoom euh, dugg nañ ci gox ak goxaat yi ruq ak ruqaat yëpp ba jàpp nañu ne waa ginnaaw raay noor ñoom lañu ja euh, ñoom la ñuy jàppale moom dina leen fekk ci sunu yaakaar benn information bi ci am taata ku ci nekk ay kàddoom par parparloo moom kàddu yu ñu dénk eggee nañ leen ko ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Pastef ginnaaw raay nord dégtal nañu leen seen ki nga xam ne moom mooy seen chargé de communication di Ousmane Sarr expliqué li nga xam ne loolu moo am donc euh, noonee la demee gars yi euh, mu mel ni rek mën nañoo yëkkati mën nañoo yëkkati jotaay bi mais nag wax nañu ne ci information que Ousmane Diagne du Outmane Diagne di doomu ginnaaw raay ku ne xam ko ci biir Pastef te mu nekk koo xam ne nii tëjoon nañ ko fi kaso euh, daanaka di ko seetaat mu daw exilé wu daa di rawale boppam nee nañu daal ba mu dab see caravane Diomaye président euh, dafay war a ñëw tey ci goxam di ginnaaw raay gi nga xam ne fi la yeewoo fi la dëkk di fiefam fam la defee léppam dina fi ñëw niki tey te ñoom nee na ñu ngi koy réserver a vingt trois heures benn accueil bu bu bu bu bu mucc ayib lañ koy lañ koy euh, euh, réserver donc euh, dinañ fexe nuñ ko toppaatee dinañ fexe nuñ ko toppaatee mais ci kanam aussi ñu ngi leen di jox dig daje ak DKR 221 caravane bi nga xam ne madame le maire de la commune de Patte d'Oie di Maymouna Dièye dina ko amal parce que dafa war a amal caravane ci kanam incha allahu rabi dinañ leen fa dawal buñ fa dawee nag ba loolu jeex dina ñëwaat ci xam moom moo di Ousmane Diagne ak teertu biñ koy